egsi fii mu egsi foofu la bëgg Sénégal egg fa ak jeune Sénégal mais su ko neexoon mu lem ay milliards am toog këram mhm. xam nga li ma la mhm. yee di laqatu ci ginnaaw maam Marie wala xam nga moomi mhm. kenn mënu ci dara d'accord alors euh, euh, dañoo gis nekk avant may ñëw ci monsieur Sarr toujours euh, euh Mamadou Goumbala on va dire euh, le 31 décembre 2019 ñu invité woon fii euh, Ousmane Sonko ñëpp gis nañ ko par la suite ñu coupé suñu signal donc ça veut dire tu as une durée d'une semaine kenn seetaanul Sen TV pourquoi parce que peut-être dafa am lu ñu tegoon ne dañ doon publicité ay xeesal peut-être ñoom ñu jàpp ne que wala ñu bëri jàpp ne que c'était juste benn benn benn benn benn benn exemple noonu rek pour euh, def li ñu bëgg def 8 mars également événement mars bi mu amee woon euh, ñu gis également ñu ñëwaat couper signalu Sen tey lii am est-ce que ñu ko jàppee acharnement est-ce que ndiru ko bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi ahmad wa salim bokk yépp maa ngi leen di nuyu gannaaw foofu nga mujjee dama lay fàttali benn anecdote le seen signal bi ñu ko coupé ba leen ko xam nga am na booba événement yi jeexagut am na un jour boo ko fàttali ko en direct ngeen di def man maa la woo fàtte nga ko ne la nen nii ngeen di def en direct bi ngeen di def carte bii ñu ngi xeex carte bii ñu ngi xeex carte bii ngeen xeex ñu ngi ko wane ko en direct ma ne la seen antenne bi des na ko dagaat wax naa la ko wala waxuma la ko en direct laa la ko wax ñu jox ma benn numéro ne naa ci woowu Bougane woowuma ko mais dama la bëgg wax rek chef d'état africain yépp oubien chef d'état yi nga xam ne dictature wala doole la ñuy demee nii ngeen demee chef d'état bu ngeen ko demee mu def ni mu def bu amee moyen def ko maa la ko wax. cest fekk na ma fi Abdou Diouf fekk na ma fi nekkoon naa France xam nga. mais mais mais soo nee chef soo nee chef d'état euh, euh, dictateur bu nekk dictateur suy def ni ni mu def nii noonu lay defee ça veut dire quoi que comme dañ fee am dictateur boo xamante ne déglul chef d'état boo xam ne bii xam nga France en général entreprise kenn du ko tëj ndax danga xam ne boo ko tëjee nit ñi ngay verser au chômage c'est une masse salariale énorme mhm. entreprise kenn du ko tëj da ngay seet nooy waxtaan ak moom ngeen def moratoire mu ne lii laa mën a fay lii laa mën a fay entreprise de presse bu fekkee bloqué ngay comptam bëgg a def saisir matériel am mhm. mooy maanaam entreprise bi yaa ngi koy bëgg a rey combien de gens Bougane waa amener au chômage beaucoup de donc loolu ngay peser ak Bougane fisc sur le plan de la fiscalité effectivement laa wax ñaata la ameel gars yi. nga seet nan ngeen di defee moratoire muy fay ndànk-ndànk di fay ndànk-ndànk loolu laa bëgg te man loolu laa souhaité te yaakaar naa képp ku def fiscalité dëgg gi loolu la war a doon mais dama lay bëgg a xamal wax ne Macky sàll ku jàmmaarloo moom bu ko bëggal dara te bul wut ci moom dara te lépp lu mu mën dana la ko def. mais loolu est-ce que normal na fi ñu toll euh, fu ñu toll ci réew suñuy dem bay décrire peut-être un président de la République euh, qui est censé protéger euh, les personnes protéger les emplois di def ni nga def nga nga nga expliquer ko ne nii euh, la Macky Sall di réagir est-ce que loolu normal na président africain yëpp noonu la ñuy réagir président oui, africain préserver nguuram fauteuilam moo ko gën a leneen mais à quelle fin mais écoute comment Condé est arrivé là Alpha Condé xamoo li muy def dara baaxu ci muy nii nit ñi di leen rey di leen rey bañ jàpp ko léegi def ko en cage nga fa nekk dégg naa di saaga mais manoon na cee bañ a nekk mais ñoom seen pouvoir la ñu gis gisuñu les dégâts collatéraux yi nga xam ne buñ jëlee certaines actions mooy am gisuñu ko mënu leen a fexe bañ gis ko c'est comme ça mënoo ko parce que kii wax na sëriñ si sëriñ si war na ñoo intervenir mm. ndax ba mu tàngee sëñ Saliou lu mu wax bërki démb gaa yi bi ñu demee Paris ñoom Sonko defe naa la ko wax lebal ngeen ma loo xam ne lii mënuma leen koo fay te maa ngi leen koy jéem a fay ce qui veut dire que gars yi bu ñu continuer woon musiba am continuer wuñ arrêté mais lii la fiscalité le ministère des finances bëgg a def euh, kii Sen TV bu ko defee musiba am bu ko defee il va mettre des gens au chômage ay famille te boo nekkee chômage sa famille say doom say soxna tout ça li muy def sur le plan moral sur le plan psychologique mais fiscalité bi nañu ko seet Macky Sall na ko seet. Mhm. gars yi mais xanaa xamoo ne le ministre est plus féroce ko Macky. le ministre la déedéet xaw ma nan lu tuddati. ah déedéet Abdoulaye ko comment il s'appelle encore. Abdoulaye. Abdoulaye Fofana. Euh, ah, Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo est plus plus féroce que Macky et plus répressif que Macky. Macky Macky mën na koo bañ a yëg sax Abdoulaye Daouda Diallo dugal ko ci. mën naa leen Macky mën na koo bañ a yëg Abdoulaye Daouda Diallo dugal ko ci parce qu'il est plus féroce que Macky ñun temps bi ñu fi nekkee xalifa mu nekk ministre de l'intérieur dadaa dikk ba maire yi Dakar di nu dóor di nu balancer ay grenade ci maire yi Dakar Macky quelquefois am na yu ngeen koy jiiñ peut-être dégg na ko gis na ko ci presse bi mais certains de ses subordonnés sont plus féroces que lui gën ko mari day taali surtout Abdoulaye Daouda Diallo ci la. et les gens disent que Macky va le mettre en selle pour les présidentielles. de 2024 na ci ku ne jóg te di ko bàyyi. j'espère que li ngay wax si Abdoulaye Daouda Diallo yëpp am nga ci ay preuves au cas où suñ la suñ la woowee nga mën ci nga mën ci. moonu daa envoyé ay grenade ci Khalifa Sall. <laughs> moonu moonu daa duma alors euh, ma ñëw ci monsieur Gaboussa parce que suñu déggee quand même euh, kii di euh, Bougane Gueye Dany à chaque fois à à chacune de ses sorties. ko déggee da day wax carrément ni que moom mu ngi en règle partout alors ku nekk en règle partout tey ñu ñëw indi fi lii naka lañ ko mën a expliquer ak comment le comprendre. waaw la procédure fiscale là elle est elle euh, au niveau des structures de de des médias. Euh, Bougane est en règle. xëccal sa en règle en règle et parfaitement en règle parce que su nekkuloon en règle ku nekkul en règle. kenn du la jox quitus fiscal parce que quitus fiscal mooy je suis en règle avec le fisc et les organisations sociales c'est-à-dire l'IPRES et la caisse de sécurité sociale et à des dates récentes ils lui ont délivré des quitus fiscaux au mois de juillet ensuite les agents de la brigade de vérification ñëw taxaw ils ont évité le débat contradictoire bi ñëwee nañu on va faire un redressement dañ leen ne dañu bëgg ngeen wax ñu sur quelle base vous allez nous redresser jusque là cette question est restée sans réponse kenn mësuñu cee tontu à l'heure où on vous parle malgré le blocage le va-et-vient des huissiers qui défilent à des médias à Zig et cetera mm-hmm. on leur a écrit une lettre le courrier est dans le bureau du chef de bureau de des moyens entreprises dans la teneur de la lettre mooy dañ ko ne qu'est-ce qu'on vous doit exactement la lettre est restée sans réponse. Hier matin, j'ai demandé au service comptable de faire une, la même lettre et de le déposer par devers le chef de bureau par voie d'huissier. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de réponse. Parce que si réellement on leur devait, la réponse devait être dans la journée. Qu'est-ce qu'on vous doit exactement? waaw. waaw euh, bind nañ leen benn bataaxal ne leen. yéen ñaata lañ leen amel bañ leen ko joxe